voilà muy mel ni daal euh, mbir yi mbir yi euh, doy doy na waar doy na waar fii ci avenue Cheikh Anta Diop bi gars yi euh, ay nervi lañu lañu lañu indi ñenn ci étudiants yi daal la ñu doon yuuxu naan nervi yi Macky Sall lañ nekkul ni ñun ñoo ko cité mais ñenn ci étudiants yi daal ñoo doon yuuxu naan nervi yi Macky Sall lañ doon yuuxu sànq moo tax ñu ñu leerale leen ko noonu yéen a gis étudiants yi. yéen a ngi gis euh, étudiants yi ni ñuy ni ñuy dawee di affronter